dëgg yàlla euh, mbëkk mi. Mm-hmm. bu ñuy xool ay deux mille cinq deux mille sept première première kii du muy soog am. du mool yi ñoo doon dem. Mm. xëy na mool yi ñoo daan yóbbu. mais ñoom jëluñu woon initiative bi spécialement mool yi ñooy dem pour dem defi ji mbëkk mm-hmm. mais boo xoolee fléau deux mille vingt deux mille vingt et un deux mille vingt trois bii. ñi dem ñëpp ay mool lañ. ay mool rek ñu bëri nañ ci rek ñoo def donc cela veut dire que secteur bi am na problème mhm. bu secteur bi amul woon problème dafay jën yi bu fi nekkoon mhm. mool miy dem di am lu muy suturloo mhm. këram amul benn problème yaakaar naa ni kon du ko fi bàyyi di dugg ci loo xamante ni jaay sa bakkan la mais tey jii bu ñu demee ba dugg ci loo xamante ni jaay sa bakken la cela veut dire que secteur bi amatul dara nañ ko waxtaanee nañ koy wax te muy dëkk secteur bi ci boppam moo sonn secteur bi moo amatul. jën loolu kay dafa amatul jën. waaw sax te te seetaan dafa bari ci secteur bi seetaan gu métti moo ci am ndax bu ñu nee Sénégal 718 kilomètres de côte secteur de la pêche nekk booy seet mooy première euh, ween wi nga xamante ne mooy nampal Sénégal. ndaxte liy jóge ci secteur bii di di dugg ci biir Sénégal amul benn secteur benn secteur d'activité boo xamante ni bii yaa ngi koy joxe amul. li ñuy employé amul benn benn benn benn secteur bu koy employé ci suñu maam lañ daan wax six cent mille emplois jamono yooyu ñun ay tout tànk la ñu ñu wax six cent mille emplois léegi day ji boo duggee ci biir secteur plus de deux mille deux millions d'emplois da nga ko fi fekk mais tey ji bu ñu demee ba secteur boobu ñi ci nekkoon découragé commencé daw di génn di dew di di jaay ji seen bakkan ci ndox mi di dem bitim réew war ñoo xam ni secteur bi y'a problème